wecc na bon yi ndax bul trois ne 300000 francs yi ñooy avantage waaye euh, hôtel boo xam ne boo fa demee àjjuma samedi dimanche xam lu ci neex àjjuma timis boo ñëwee commencé wan na wan na wan na kenn du la téye ñoom lekk nga dañ koy tegle maanaam ay xar ay ginaar le xeetu lekk da ngay yoo daal yaay am xel rek xam ne du yoro yaa ne ci otel bi daa day suur lépp a ngi fa kon nag mbokk yi ñoom tamit bokk nañ ci a am seen émission Kouthia Show ndax ñoom dañoo bokk ci ñiy neexal émission bi waaye waa GFM en fait bu ñu jógee ci loolu nag ñuy nuyu tamit suñu sponsor yi nga xam ne ñoo a ak ñun ñëpp waaye di ziar suñu papa alaaji Cerno Sama Sa mora bi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Cerno Bokar Alpha ca war a ak alaaji wax yéen na ngay def gàmmu di Cerno Abdourahmane Bari ca Bogol waxtu bi nga ca France ak Cerno Hamdou Aw nekk xalif bu Thialaw près de Ndioum de sama papa di nit ko yàlla baaxal ak suñu papa alaaji Ousmane Ndiaye di waaliw Kamin dëkk ci HLM Angle Mousse ak soxnam Adja Mam Bousso Cissé ziar nañ tamit suñu papa alaaji Bassirou Baara Mbacke dëkk ci HLM Guédiawaye di nit ko yàlla baaxal Go Fall nag moom mooy sëriñam Abdou mu koy ziar moom tamit di ziar tamit képp ko xam ne mboolem mu taalibe sëriñ euh, Bassirou Baara Mbacke ñu ñu tamit sëriñ Abo Mbacke ibnu sëriñ Fallou Mbacke sama xarit nekk foofu ca Touba ak sëriñ Mbaye Sy Mansour ca Tivaouane na yàlla taxal euh, dëgëral taxawaayam di nuyu tamit sëriñ Maodo Sy bu maam Abdoul Aziz euh, Sy rebel taala Chérif Ahmed Tidiane Aydara ca amu sis di sama papa alaaji Seydou Sow nekk ca Passy di yeewoo ca zone A yal ko yàlla defal jàmm ak Serigne Mamadou Sougou Waadaan waa Waadaan yëpp nag ngi leen di bëggee di ñaanal tamit fan bu gudd ak Serigne Cheikh Omar Tall ca Sokone nuyu nañ Abdou Karim Mangane ñaari soxnaam yëpp samay xar nañu Sadio ak Fatima yal na defal jàmm Serigne Babacar Kayre xalifa alaaji Ngouda Kayre ñu ngi koy ziar ak cardinal Théodore Adrien Sarr bu baax nag ki nga xam ne moom mooy Serigne Mansour Sarr nekk nag koo xam ne mu nga foofu ca wan waaye da yeewoo ca dëkk bu ñu naan Budi moom yal na ko yàlla dafa jàll ndax Serigne Mansour Sarr daal vraiment am nañu mbégte contentement bu mag ak ajaratu kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum yal na yàlla guddal fanam ak Cheikh Ahmed Tidiane saar di ko nuyu ak Mame Maodo saar Ah, di nuyu tamit euh, Oumy Sarr ak Soxna Asi si ñoom ñëpp ña nga ca Tiwaawan di nuyu tamit population bu buddi mbokk yi nag li ñuy def moom mooy ngeen xam ne yéen a ngi seen émission Kouthia Show te di jàpp nag ne émission bi ziar nañ ci képp koo xam ne kilifa diine nga ak aada li ñuy def nag moom mooy seeti Amath Dansokho Amath Dansokho moom dafa wax ne day ñëw leeral li tax Macky dem waaye tamit indi part euh, euh, réplique ci li nga xam ne moom mooy doxalinu Karim Wade bi ne day def grève de faim moom Amath Dansokho lan la ci fas yéene doxalee ñu mbokk yi ñu seeti Amath Dansokho te jot kanamu population Kédougou bi nga xam ne dafa demoon pour leeral taxawaayu Macky Sall ca li nga xam ne moom mooy mbiru sarli ba ak taxawaayu euh, Karim Wade ci chantage la wax ne moom la bëgg def gouvernement bi ñoom ndax danañ ko nangu waruñ ko nangu ñu seeti ki nga xam ne moom mooy Amath Dansokho xota xota boole xota ma ñamaa ni xota tey boole xota ba ñamaa ni xota ay ba ñamaa ni xota di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm bu leen ma reetaan ndax dama am ñaar yu ma ñor xomb ni konkorong saraxule boo gis dafay dëgër bopp ni konkorong lu ñu xas ba jàpp duñ ko bàyyi muy xarit buñ ko jàppee duñ ko bàyyi di kóllëre di xamal ñaar du ma nangu mukk waa PDS yi jël demu Macky Sall ca France bëgg koo politique bëgg koo yàqal duñu ko nangu ndax Macky ñaar rek moo tax mu dem terrorisme li am barki démb ca Mali fan la Mali nekk ma nga ca frontière ak Kédougou ak Bakel ak Kidira boo taxawee Kidira da ngay gis Mali yee di dugg di génn Kayita Kanouté Konaté Touré Mandi Mori daasox tur yooyu rek ah, sant yooyu nga fay dégg waa normal nga xam ne ay ah, ah, ay rebe la fa nekk bu ñu xuusee maa ñàpp ne xuus jàll frontière dugg toj Tamba fu ñu jëm duñu wàcc Kumpentul xuus dem Koungheul wàcc jaar Saalum dugg Fatick jaar Mbour dugg jëm ñaajo toj Dakar ñibbi kon ñun ñëpp terroriste dañu ñu xëy rey loolu rek moo tax ma gisam pour wane ne terrorisme kenn waru ko def ci réew ndax yi nga euh, ne mooy euh, demu Macky Sall du lenn lu dul euh, marche pour wan ne terrorisme kenn waru ko seetaan ndax nit am na lu ko naqari nga fajal ko sa bopp bu doon loolu kon àdduna tukki na yàgg na waaye président bu ñu ko invité tey bu ñu toogoon ñu ne am na ay terrorisme yu dugg benn la den ngi Dakar France banque loxoom Allemagne banque loxoom États-Unis banque loxoom kon ñun ñëpp euh, dee nañu dañuy dem pour wane ne ànduñu ci terrorisme waaye la ñu def ñoom bind ko kenn àndu ci man daa soxlaatul amaan pape bi wax na ko ci avion bi nee na kenn warul euh, jël diina jàmbur di ko saaga du yoon bi nekk euh, ca Rome wax na ko nee tey du yoon ëllëg di bàyyi. diina jaambur di ko saaga kenn àndul ci loolu waaye am nañu ci tamit terrorisme waaw waa PDS yi nga xam ne dañuy jël mbir mi bu ko politique ñoo lànk ñoo bañ Macky du sarli tey du sarli ëllëg Macky musulman la lii nga xam ne laa ciy teg mooy gune gi Karim day tapale baayam nii la defoon day tapale maa ko wax Ablaye boo ko jàppee tëj ko kaso mu commencé wax grève de faim xam naa bàjjee ko woo na ko gréewal bu lekk waaye bu <laughs> bu lekkul seddaa bi moo ko yëg <laughs> ñam yu neex yi xam ne moom la koy nit ñi jox su ko geddee moo koy yëg bu ko kenn jox dara waaw bàjjee ko koy xelal Ablaye koy wax bu lekk bul naan ñuy wax mu naan bu dee lu ko dal ko la ak kii fu mu ko teg fu mu ko teg seddaay bii ku la jox ñam bu tàng nga lekk lu tàng naan lu sedd teral sa biir teralante sa biir mbàq lu neex dong ngay sax xam ne lekk sa yàpp mokk nga ne kenn du ko force bu ko kenn forcé jox ko lekk waaw bu ñu kenn rey bàyyam moo ko wax waaye Karim bu génnee ba nga ñee ko jàkk ñi ko gis xam nañ ne am dafa am yaram ma nga tol ni ko neex kon bu lekk moo xam bu lekkul moo xam waaw ñun danañu lekk seeñu sekkaratu barki dem balaa jógee Algérie ànd ak Macky dañoo teral a teral ba fu ne nii mar de tan kon xoto xoto boole eh, xoto ba ñamaa ñoo eh, eh, waay waay waay waay waay bu ko kenn tibbal day tapale kenn laalu ko maa ngi dégg ma dikke naan dañ ko galgal kenn galgalu ko Ablaay la moo ko ko xelal kon xoto waaye xoto lee xoto ba ñamaa